noon mm. pour banque loram mm. ah kii boo ko baxee nii rek mm. lor la lay def nga seet foo jaar ak moom nag bu du la lorat loolu mooy cosaanal jihaad dégg nga islam dafa nekk diina boo xam ne dafa ñëw pour jox basar yi mooy ak ndoom aadama xaqam ci wàllu saahir ak ci wàllu batin yoonu muy tëral rek foofu la jëmale nit ak heure bu koy xoo it foofu rek la ko jëmale mu nekk xoote bu am solo nekk yoon wu am solo li nga xam ne mooy sunnatullah mooy aada bi ñu yàlla miinal nag ci xoote yoo am solo yi am ñu nangu xoote ba attan ca nangu ga lu ne am ñu bañal xoote ba itam attan ca bañ ga lu ne loolu nag moo xam ci lislaam am na ñu ko bañal ca attan ca bañ ga lu ne léegi nag ki koo bañal mm. te nangu koo bàyyi mu dem mm. mooy jullit ñi mel nga nu jullit ñi mën a mën a mën a amee yow jàmm mm. ku jotee wuñoo yow dara waaye ki ko bañal nag te ne du dem nag ko mooy noon bi nga xam ni il faut ñu taxaw ci moom pour fànq loram lu mu waral yoonal jihaad moom lay jàngale mu ne baabun lii buntu la fil jihaadi ci biral la xàtteef jihaad mm. wal jihaadu jihaad faridatun farata la mm. yaxmiluhoo dana ko xenu mm. baxdu naasi lenn nit ñi xam baxdin walis lenn jihaad farata la ko amirul muminin hootee suñ bañee xëy huñ ko ñu ñëpp ñooy bokk bakkat bi waaye na fardu kifaaya la soo ñu ko hoote ba lañ soxla woon taxaw ñeneen ña def lañ ñàkk a ba nekk ci seen mbiri bopp du leen taxa bàkkaar waaye tiyaabu xëy ji ganag ñu xëy ji koo jël de wal jihaadu jihaad faribatun farata la yaxmiluhu dana ko xeenu lum da a hubbi ko kal ko അവയ്ക്കല്ലേ ubbi ko ubbil bunt bi kal ko dafay dafay dafay tàng ubbi ko dafay day tàng bu ëpp day jàll rek ubbi ko kal ko moo tax ma ne yaxmiloo dana ko yanu baadu naasi lenn nit ñi am walis lenn wa la gën a sopp ilayna fa ñun mbooloo may ko jóg maalik kalla yu qaatala mooy bu dee bu xeexat mm. alhaddu ay noon mm. hatta yu daaw dare bu fooxeef na leen mm. ila diinillahi jëm ci dina yàlla ji dañoo bëgg yow mi amirul muminin bala ngaa takk nga nay da dem ci ay xéefa ndax ay noon lañ dangaa jiital xoote jëmale ci ñoom soo xootee jëmale ci ñoom buñ xëy si wut ba xëy si wuñ nga xam ne ñii noon dëgg lañ nga door a seet fooy jaar ak ñoom muy hmm. raw buñ leen xaw illaa yoan jiloo naa da rek bett nañ ñu hmm. su fekkee ñoom nag ñoo seen doole bopp nag hmm. ah, njëkk laa song woom xeex rek moo fa sës na waxtaan xajatu bi fa imma benn ay yuslimo ba ñu tuubat aw yu addoo wala ñuy joxe aljiseeta galak léegi nag xéefar yooyu boo leen di xoo kenn ci ñaari mbir nga leen di xoo mm. dañoo tuub dugg ci lislaam bi mm. suba nekk ñenn ci jullit ñi rek mm. bu ko defee sariya ni muy wattoo dereti jullit noonu lay wattoo seen deret ni muy wattoo xalali jullit noonu lay wattoo seen xalal ni muy wattoo itam derab jullit noonu lay wattoo seeni der suba itam na seen barab la cay xàqi sariya bi la xàqi sariya bi ci yeneen barab yi moo cay xàqi sariya su fekkee nangu nañ loolu ñu dugg ci lislaam mu jeex su fekkee loolu nanguwuñ ko waaye na nangu nañoo jébbal buur bi seen suuf si mu dogal ci àtte ñu dëkk ci at bu nekk ñu joxe galak droit yi nga xam ne moom lañ leen teg ñii ko fay te duñu tooñ kenn kenn njabootu lislaam duñ dumbale kenn kuy xeex jullit ñi suñ nangoo loolu kon ñu kóoraanteeg ñoom ci nekkin woowu subaana dañ leen mooy ci lépp nag ñaari yooyu ci lañ leen di woo lenn mm. suñ ko nangoo baax na ñu ñu dund ak ñoom ca loola mm. suñ ko nangu wóot ba nangu wuñ ko nag mm. boobu lañoo xam ne ñii ay noon lañ ndax bëgguñ liñ nekk xéene wuñ ñu jam suñ dogul ci ñoom dañoo lor fa imma benn ay yuslimoo ba ñu tuubat aw yu addoo wala ñu joxe al jizyata galag wayilla bu ñu ko deful xóotiloo xexeef ak ñoom mm. waaye su fekkee nangu nañ kenn ci yii nag mm. ànd ak ñoom ci jàmm ñoom yàlla xayeetu ko mm. la yanhaakumullahu an alladina lam yuqatilukum fi ddin walam yuxrijo walam yuxrijokum min diyarihim an tabarruhum kéefar yi nga xam ne nekkuñ ci seen diina ji waaye xañuñ leen jàmm sama borom xayeewul leen ngeen ànd ak ñoom ci jàmm dégg nga waaw du noonu laa yanhaakumullahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddiini walam yuxrijukum min diyarihim wala min diyarikum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbu almuqsitin ah noonu la demee dégg nga walam yuxrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin wa innama tuqbalu xamal déefu nangu nag minhum ci ñoom aljiseetu galak ida kaanu ndare boog nekk nañ xaysu tanaaluhum fu bi dana leen jot akaamuna suñuy xatte ay xéefar nag buñ leen di xooj ci lislaam ñu bañ pour ñu nangu jëlal leen galak mm. dañoo nangu ne suuf seen suuf bi mm. l'islam moo ciy dogal àtte mm. waaye su fekkee seen suuf si amirul du ci am benn ba ñoom daal mën nañoo joxe kem galak rek kooku waa duñ nangu galak bi ndax jubóo gi du sotti wa innama tuqbalu xamal deefu nangu minhum ci ñoom aljiseetu galak ida kaanu ndare boog nekk nañ xaysu tanaaluhum ku bi dana leen jot ak kaamuna suñuy xàtte mm. seen suuf bi buur bi moo ko xelif amirul muminin mm. ndigalam ca lañ fa nekkee mm. loolu la ñuy nangu waaw ma im ba oodoo daal bu ñu soree maintenant ci nun kooku falaa tuqbalu deefu nangu mi noonu ñëw al giseetu garab waaye su fekkee xoo leen ci ci diina ñu bañ ñu xooleen ci jébbalul ñu bañ mm. kon dañoo xam ne ñii mënaguñoo séq ak ñoom jàmm mm. kenn ñaari yëf nag mooy am mm. xam nga ne am nga doole song leen nga song leen duma leen wala xam nga ne seen mbir lañ na tey nga tey ba xam na réassuré ci ñoom rek loolu mooy am waaye nag nañ na jox galag noonu rek kooku duñ ko nag ilaa yartahiloo ndare boog laxas nañ ilaa bilaadina jëm ci suñ dëkk yi mm. lu mooy ku toxoo ci suuf soo sale nag mm. dëkk ci suuf soo xam ne lislaam xas na ci dagg mm. kooku bu fi bëgg dëkk day joxe garab bi way laa buñ nanguwul joxe garab te toxu si bi xóotiloo xeexeef ak ñoom wal firaaru daw minal aduwi ci noon yi minal kabairi mu ngi bokk ci way màggi bàkkaat yi Mm. ñu de xeex ba ca kanam nga ragal daw mm. bakkat boo maga maga mag la mm. sama borom tëkku na ci ci alquran ida kaanoo bu ñu nekkee ñoom noon yi mislay adadil muslimin da ñaari kem limab julin ñi faaqal la ak lu ko gën a néew su fekkee ñoom nooni fañ mat ñaari yoon julin ñi xem ca rek wala matuñ leen ñaari yoon julin ñi dem nañ ci ñetti junne noonu de juróom benn junne mbaa lu ko manqué mm. konoon daw du dagan mm. fii eh, daw moom du dagan du dagan mm. moo tax daw min al aduwi ci noonu yi min al kabaayiri mu ngi bokk ci way màggi bàkkaat yi idaa kaanu bu ñu nekkee ñoom noonu yi mislay adadil muslimin de ñaari kem limam julin ñi fa aqalla ak lu ko gën a néew fa yéen kaanu bu ñu nekkee ñoom noon nooni nag mm. ak sara di gën a bari mm. min zalika ci ñaari kem limi julin ñi mm. kon fala baasa dagan na bi zalika ci daw su fekkee xéefar yi nag ëpp nañ jullit ñi ñaari yoon ni ngi jullit ñi benn junne lañ xéefar yi dem na ci ñeenti junne mbaa ñetti junne konoom daw dana dagan ndare mu doon ne jullit ñi bari nañ ba àgg fukki junne nit ak ñaar mm. fukki junne nit ak ñaar buñ xasee ba àgg mm. ak lu leen noonu hëpp hëpp mm. dootu daganate ñuy daw ndax fukki junne ak ñaar xamul lu ñu àttanut loolu moo tax xamul lu ñu àttanut dégg nga wa yuqaatalu def na xeexat alhaddu nooni maa kulli barrin ànd ak bépp aji baax wa faajirin ak bépp aji jeng mm. minal walaati ci kilifa yi mm. jihaad nag saa su buur bi xootee mm. du dagan ñi bañal ko dañ ko war a xëy ji mu dee buur bu baax xam ne dafa xoote jihaad ndég bëgg koyal baatab yàlla rek kooku bañal ko mooy yàlla dëgg la dañ ko war a xëy ji baax a baax muy buur bu bon bu xam ne xoote na jihaad man naa am loola nga ca man naa am leneen a ca waaye jihaad la woote jihaad du mooy yàlla mm. comme ñun ñoo ko fal te mënuñoo ñàkk kilifa mm. il faut ñu déggal ko waaw mm. ah, mbooloo doon mënu ñàkk ànd ak kilifa te xas nañ ko tànn muy suñ kilifa il faut ñu déggal ko subaa jubadim googu teewul mu amal njëriñ diina sax inna allaha la yu ayidu haada diina bi rajulil fajiri mooy léeg-léeg nga gis kàccoor sama borom dëgëralee ci moom diina loolu day xam léeg-léeg moo tax jubadim gi gannaaw li mu wax li diina di soxla léeg-léeg la tumaranke woon sax mu amal njëriñ diina wa yuqaatalu def na xeexat alaaduwu nooni maa kulli barrin ànd ak bépp aji baax wa fajirin ak bépp aji jeng menel wulaati ci kilifa yi buur bu wootee jihaat dañ ko war a xëy doonte buur bi baaxul itam comme ñoo ko fal lim ñoo du mooy yàlla dañ ko war a ndax mbooloo mënul ñàkk kilifa te xam nañ ko tànn muy suñ kilifa kon buñ ko bañalee lu muy doon lu neex nit mu def loolu na baaxul wala baasa dagan na bi xatli man ci rey koo xam ne usira jàppees na ko minal alaaji ci ponkal alahel ju mooy héebër boo doo mag bu fekkee xeex na ñoom noonu gañe xeex bi fu muy mujj mooy ñoom ñu xam ne lot nañ ñu daw rek subaa tumarankewul moo am ñun jàpp ci bu ñuy daw ñooñu ñu jàpp nag ba tëxee leen ñooñu kii buurab xare bi mooy diisu ñi muy diisu ñi seet lu ci ëppal njëriñ jullit ñi mu àtte ñoom loola su fekkee lañ leen xalal gannaaw ay mag lañ su fekkee lañ leen xalal ñu joxe ko dem lay jëflanteeg ñoom mu def loolu su fekkee baxal leen du leen laaj dara lay jëflanteeg ñoom mu def lool su fekkee rey leen lay jëflanteeg ñoom mm. mu def loolu rek mm. waaye gannaaw ay mag lañ nag mm. bu mu fi téye mukk naan ay jaam lañ loolu mu ko def mukk moom yooyu lu ci mën rek yonent bi doxal na ko gis nga xare badar ñeen ci jàppoon ñooñ dañ leen laajoon xalal ñu joxe ko dem xare euh, banu Quraydata ñeen ci jàppoon ñooñ dañ leen reyoon baaluñ ci woon kenn xare banu Mustaliq ñeen ci jàppoon ñooñu eh, fañ leen baaxal woon rek ñu leen woon dara lu mu ci maa dara bi doxal na ko mm. fekk balaa mu koy doxal mm. dana ko teg ci gis ne lii moo xamal njëriñ lislaam bi mm. gis ne lii moo xamal njëriñ lislaam bi mu def loolu su baax nag usaara yooyu nag yow mi amirul jay nag yaay jëfandikoo sa xam-xam yaag ñi nga war a diisu ba ngeen gis ne lii mooy njëriñu lislaam bi ngeen dogal ci ñoom loola léegi boo xasee ba dogal loola nag ñoom il faut ci la jaar nag ndax moomatuñ seen bopp bay bañ leen wala baasa dagan na bi xatli man ci rey koo xam ne usira jàppees na ko min alaaji ci ponkal wala yuqatalu deefu rey aadun kenn baada amaanin ci gannaaw hóolu loo mooy garante nit dem nañ ba ca dëkki noonu ndég jihaad am benn waay buñ fa fekk mu dajeeg yow ngay kenn ci julin ñi jege nga buur bi wala jege xoo ko mm. mooy la man nag waxtaan moo fi indi mm. waa dëkk bi li ngeen joteeg ñoom mm. ba de xeex ak ñoom maa ngi dëkk ak ñoom waaye man bokkuma ca nag dama bëgg nag damay ñaan nag man gannaaw bokkuma ci duma ko benn xay di baxoo ci moom ngeen may ma jàmm bàyyil ma sama kër bàyyil ma sama njaboot bàyyil ma sama alal lii la wax moom jàpp na ba mu xeexut kenn loolu su ko waxee bañ garanti ko ne duñ ko laalati dañ ko romb defee go lislaam xuruj bokk ca gannaaw wax na loolu bañ garanti ko ne duñ ko laalati kenn waratu ko rek jullit dañoo xam ne kuñ garanti la rek fekk nga xam ne moom moom tasu kóolare dañ koy bàyyi rek kenn du ko wax dara wala yuqatalu deefu rey ahadun kenn banda amaanin ci gannaaw hóoluloo mm. wala yuxfaru deefu huruj lahum ñaal xéefar yi mm. bihan din ci kóolare mm. ay xéefar su fekkee dañoo xaslanteeg moom kóolare gu xam ne war na mën a tax ñu jàmmoo fekk ñoom ñu ngee sàmm lañ fasante woon ak ñoom yow mi amirul muminin bal xilaat mukk songaleen l'islam du yëfi huruj yooyu ñu ngay sàmm la ko kóolante woon ak ñoom mm. bul xalaat mukk song leen mm. suñ demee bu huruñ nag mm. nga xam ne huruñ nañ da nga leen xamal ne kóolante moom nekkoon suñ diggante su waa lu lu ngeen gis bu leen bett mën nga leen wax loolu wala yuqatalu deefu rey annisaawu jigéen ñi suñoo xeex ak dëkkam ay yéefar seeni jigéen duñ leen rey gannaaw xeexuñ waaye dañ leen jàpp nag wa sibiyaanu ak gune yi seeni gune yi duñ leen rey mm. waaye dañ leen jàppit nag buy mm. tana bu def na teet xatlu ruux baani rey kilifaay labbe yi mm. wala xabaari ak seeni fóode maanaam rahib nimmel ci dinay nasaraan mu ngi ni doog soofi nimmel ci dinay lislaam aw nit la ñooy doon ñoo xam duñ wut soxna duñ bëgg ci àddina bi dara dañooy tabax seeni jaamukaay rek mm. nekk fa de jaamu yàlla mm. ñooñ la tuddee ay ruhbaan mm. su ko defee ñooñu nag ñun bu ñuy xeex ay xéefar la ñuy faral daragal ci ñoom bay xeex ñoom loolu duy baxoo ci ñoom ndax ñoom yëngatuwuñ ci dara waa dëkk boo xam ne jaamukaay yooyu nga fa ndax nit ñi demee noonu ñoo fa nekk su fa buur demee ak jihaad ñooñu def leen di wattandiku gannaaw ñoom liñ tuddoo ci lañ ne rek bokkee ci xare bi nen kon duñ leen wax dara mm. te itam nag kenn du leen jàppin nag mm. dañ leen di bàyyi rek mm. su fekkee dem nañ ba gañe dëkk bi nangu xaalali dëkk bi ba mu jeex tàkk léegi balaa ñoo dem dañ seet ñoom nuñ fi doon dundee su fekkee waa dëkk bi ñoo leen daan jox lu ñoo dundee kon dañ leen bàyyi ci xaalali dëkk bi lu leen mën a yore waaye duñ leen leen ràgg mukk nag su fekkee ñoom ay si ay boromi alal lañ xool seeni xalal lañ doon dundee ñi seet seeni alal bu leen man da yore mm. ñu dolli leen lu leen mën a yore mm. ñi seet seeni alal bu leen xëppee mm. ñu nangu ko bàyyi ko lu yem ak bàyyi leen lu yem ak ñoom rek noonu la lay demee noonu la ñuy jëflante ak ñoom rek way tana bu dem na teet xallu ruhbaani rey kilifay la bay wala baare ak seeni fóode illaa yu xaatiloo ndare boo xeex nañ ku ci xam ne lam tuddoo génn na ca génne ngànnaayam de xeex xeexab hissu kooku dañ koo rey wala saaboo xeexab maana lay xeex mm. parce que gars yi ñu ngi koy fekk ca saw mahaba mm. muy leen xelal da leen déyal mm. kooku buñ ko xamee dañ ko rey wa kadalika naka noonu na ko rey ida xaatalat bu xeexe jigéen su fekkee dafa génn dugg ci biir góor ñi de xeex bu waa waaye moo góor xam dañ ko rey rek waaye joosu dana wéy amaan adnal muslimin xoolal loo ak ku suufee si jullit ñi mm. ala baqiyati ci ndesi seen mm. yow kenn nga si jullit ñi mm. dëgg la xamula darajaay sax nag ñii def dala diisu nga ne fi xamula daraja jooju xamula darajaay sax nag ñi bëgg a tëral nekk ko fi ñii la xaar àggoo foofu yow daal fi nga toll mooy yëg ne tëral nañ nangam rek su boobaa ab xéefër su baxoo ci yow su baxoo dëkkam bëgg koo garant yow boo taxawee garantu ko mm. kon itam loola ñëpp ko war a sàmm rek mm. waaw su taxawee ne dafa bëgg koo garantu yow nga garantu ko mm. ndax gis nga ne ku ni kii daal garantu ko may ko jàmm moo gën kon it la nga def liggéeyam ñëpp la ñëpp ko war a respecté rek waaw ten baax baax yow xamul la dara jaay sax buur bi bu bëgg tëral dara soo fi mu xaar la xoolu la xamul la dara jaay buur bi bëgg tëral dara yow dana la diir sax ak goo foofu ndax mbooloo bi yëpp mënuñoo am daraja boobu fi nga toll mooy da ngay yëg ne nangam tëral nañ waaye xam nga koo gis ne daal garanti ko moom moo di gën suba boo garanti itam ak ñëpp ñoo war a sàmmanteeg li nga def rek ndax ñëpp ngay jëriñ gis nga ko dafa fekk ne lële ay xeen la te xeen man da dañ ñëpp rek waaw il faut rek buur bi balay def dara yow lay diisu wala boo fi newu dana la loolu ay xen la xen nag man dañ mbooloo mi seetlu nga baax a baax gannaaw ne xen la te man dañ mbooloo mi nag keneen koo xam ne xen boobu nekku ci waaye liggéey na luy jëriñ mbooloo il faut ñu nangu liggéeyam waaw fa masay fa murabitun wa seyxu aw abnahuma asmau taklifin alal insani affaire murabit laag affaire u sëriñ laag affaire ibnu seyxi laaj mm. yi ay tur la yoo xam ne mm. soo ko toppee ba topp ko minal bidaaya ila nihaaya turi sonal ni rekk la mm. turi sonal ni rekk la ay tur la yoo xam ne kuñ ko jox rek moo yow ko war di sonal waaw ay sëriñ di yooyu turi sonal ni rekk la seen turi sonnale la dañu baax baax fa murabitun wa seyxu aw abnahuma ñu naan la wala seyxu la wala ibnu seyxi la mm. asmaau taklifin mm. alal insaani mm. sa la ay turi sonn lela yu ñuy teg nit rek loolu moo dafa am yoo xam ne xen la xen man da dañ ñëpp nag su fekkee xen boobu yàlla woyofal na la ko itam nag waaye def na tax feex nga liggéey loo am njëriñ ñëpp ñoo war a d'accord ne liggéey bi ñu dañ ci war a jëriñ wa kadalika nekk noonu almaratu jigéen su garantee nit kenn du ko lal gis nga bu baax bi sallallahu alayhi wa sallam keroog fadu màkkata am na ku ñëw ci moom koo xam ne bu xamul koo xam ne bu ko kenn ci soxna yonent bi gaana garantu doon dañ ko war yaakaar na Abu Sufyaan ibnul Haris la keroog bu fekkoon du li ko Ummu Salamata garant kon dañ ko dañ ko war dañ ko war waaw kon jigéen danay garanti rafadu makkata abu sufyan ibnul haris ibnul haris ibnul muttalib muhammad ibnu abdillah ibnu muttalib ibnu hasim ay bokk dëgg lañ su ko baax baax ba ñëwee yonent bi lañ soxla waaye da mukk du dama fàtte waaye da mukk du ñëw mukk waaw di si yonent bi moo dem moo leen ne bu leen kenn lal mm. dem wax ak yonente bi ba mu baaxal mm. waaw dama jigéen danay garanti danay am danay am kara bu dul umu salama mm. kon jigéen danay garanti dégg wa kadalika naka am almaratu jigéen na moom gune ga alamaana hóoluloo gune ci julin ñi soo amee ab xibaar bu mu hóoluloo mm. dañoo sàmm loolu mm. boo kenn laal mm. gannaaw gune gi xam na hóoluloo mooy lan xam na itam dara ci li muy liggéey ci njëriñ waqiila waxees na ne in ajaasa bu wéelee saalika hóoluloo googu al imaamu helima jaasa mu wéy xam nañu gune nag gannaaw sorian waxut ak moom nag su hóoluloo ab xibaar loolu balay mën a wéy moom amirul muminin mooy ki jiite xare bi mm. mooy seet lii su fekkee am na njëriñ mu ne d'accord na ci mm. mu wéy mm. bu d'accordul du wéy wa maa ganima lu màng na ko almuslimoona jullit ñi bi ijaafin ci lokke mooy xeex falyaa xus na jàpp al imaamu helimaan te mooy buur bi jullit xumusahoo xumusam wa yaqsimu te mu séddale al arbaatal axmaasi ñeenti xumus ñi bayna ahlil jaysi ca diggante ñooñ xare ba su fekkee dañoo xeex ak ay noon ba gañe leen seen xalal dañ koy nangu xalal jooju buñ ko nangoo dañ koo xaaj juróomi xaaj benn bi kii kilifa xare gi moo koy téye am na ñoo xam ne xeex si wuñ te wax dëgg am na ñàkk ci àll jullit ñi ca ñooñ la koy jëmale ñeenti xaaj ñi ñoom lay séddale ñu doon xare mm. wa maa xanima lu màng na ko mm. almuslimoona julin ñi mm. bi ijaafin ci lot gannaaw luñ xeex ba jot ci la fale na jàpp alimaamu helimaan te mooy buur bi julit xumusawoo xumusam wa yaqsimu dana mu séddale al armaat al axmaasi ñeenti xumus yi bayna ahlil jaysi ca diggante ñooñ xare ba wa qasmu dalika séddalee loolu nag bi baladil xar bi ca dëkku xare ba mm. awla moo gën a xëy mm. wa innama yu xammas yenn ko xumusal ah waaw ah, baax na jërëjëf mu ne séddalee ko fi doon xaree nag mm. moo gën a gën xam nga tey duma leen dàq leen te seen xalal yi di ko ci seen dingre yi moo leen gën a naqari wala loolu gën a naqari ngay wut mm. loolu boo yóbbu nga xalal ji ba mu fàddule mm. nga door a nekk di ko mm. waaye séddale xalal ci seen kër yi nag moo leen gën a naqari moo baax na foofu beneen yoon incha allah ñu ngi nekkoon ci affaire màng ci lay wéyaat wa yuqasamu def na séddale maa lépp lu xam ne ooji fa lokkees na alayhi ci moom bil xayli ci fas war rikaabi ak i gawar mm. wama ak lépp loo xam ne xunima mangees na ko mm. bi xitaalin ci xeex mm. xare buñ koy def lépp luñ nangoo ci noon yi gannaaw xeex ba jot ci la lépp mànga la amirul jaysi mooy imam bu jëlee xumus bi la def dañ koy séddale ñu doon xare gis nga ko baax dees na séddale maa uuji fa lu lokkees na alayhi ci moom bil xayli ci fas yi ak gawari yi ak lépp loo xam ne xuni ma mangees na ko bi xitaalin ci xeex su ko defee nag ñi dajale mànge gi nit da ci yolli lu boppam ndeg bëgg am lu bokkul ci cëram càcc gu garaaw a garaaw la ay tëkku moo ci xam xaswatu taif laa ko teg moom laa ko teg yonent bi dafa amoon benn jaamam bu ñuy wax midham midham gis nga baax baax gaañu rey ko ci accident bi ko jaasi yi dalee ba mu nekk ci tiisu dee saaba yi am ñu koy ndokkeel ne sahid la mu ne leen de sa law la de mu lamboo de moo ko taxalak ndax ca màng ga la ko sàcc mu ne lambaayam sële de moo koy taxalak ndax ca màng ga la ko sàcc wa ahlaku xulaamuhu la <laughs> waaw kon lu doy waar la hmm. ndare nag hmm. lu xam ne jullit ñi ñoo ci war a taxawu seen morom te nga soxla ku la ci taxawu hmm. loolu moom man nga caa jël ci mànge gi kem di tolloo liñ ci soxla mu laa ne wala baasa dagan na an yukala bu lekkee fat minal ganimati ci mànge gi xam laan tuq sama njàkk bu seddalee fat attaamu ñam wi dañoo nangu ci maa ngi ci nooni dund mm. yow yëg nga ne xiif nga lool lool mm. nga jël ci dund boobu mm. kem loo tollook sa soxla jëriñoo ko loolu baax na ndax wax dëgg yàlla yow boo xiifoon xamuloo dara jullit ñi waruñ lay seetaan xiif bi de la lool kon xalal ji mbokk ñoom ñëpp man nga cee teg yolor googu wal xale fu ak yefal li man ñaal koo xam ne ihtaaja haajoo na mu mm. ila dalika jëm ci yefal mm. wala dañoo nangu ñoom loo xam ne dañ ko dundalee jur mm. yow sa fas xamoo dara loo ko jox te waxtu lekkam jot na loola man nga caa dindi kem la doy sa wa nga jox ko ko ndax parce que bu naroon loru ci xiib jamaa muslimin waruñ ko seetaan loolu moo tax baasa dagan na ay ay yuukala bu lekkee fat minal ci mang qabla an tuqasama njëkk bu seddalee fa mm. a taamu ñam wi mm. wala defu ak yefal mm. li man ñaal koo xam ne ixtaaja haajoona mu ila dalika jëm ci yefal wa innama yusamu xamal deefu sedd nag li man ndare ñaal koo xam ne hadara teewee na mu alqitaal ak xeex bi màng nag ku demut fañ doon kare moom bokkoo ca déedéet ku demut fañ doon xaree moom boo koy def mm. yow am nga daraja sàngam am nga daraja sàngam mm. mel nga nangam mel nga nangam mm. waaye xeexuloo maa nga ñeneen kon ci xeexu kay ba ñoo ko moom aw taxallafa wala mu wuutee xanil xitaali walis xeex bi fi soxlil muslimina ci soxlaay julin ñi min amri jihaadihim ci mbiram seen jihaad wala yow dikku la fi ñu doon xaree kenn ci suut fi de waaye fa nga nekkoon nag ña doon xare nga fa neexal kon itam dañ la seddu ci màng gi mm. ndax yaa ngi bokk ci xare bi mm. lu mel ni ñii xare mm. dund bi ñii soxla yow yaa koy toppatoo da ko jox ñii ko indi ñii ko indi suñ la gis ñoo nga nekk ñii nga fa neexal kon bu ñoo seddoo màng gi dañ la jox wala ñii xare ndox mi ñii soxla yow yaa koy toppatoo da ko jox ñi koy indi ñi da ko indi subaa yow fa nga nekk ñoom nga fa neexal tubaab bu ñu séddale ci màng gi mm. dañ la ci sédd mm. wala ñi xare mm. te yaay ki leen di wattu seeni barab di leen wattu seeni njaboot bu du doon yow ah mu demee ne nen waa fi nga nekk nii ci dëkk bi di leen wattul seeni bopp seen njaboot ak seen xalal ñoom nga fa neexal kon itam bu ñu séddale ci màng gi la ci sédd seetlu bu baax a baax nekkut ci xarekaay bi waaye buuru xare bi moo xam fu ko teg foo xam ne maslaa wu ñëpp moo tax mu teg ko fa mm. ko bu ñu séddale ci mang mm. dañ ko sédd mm. aw taxallafa wala mu wuutee xanil xitaali walit xeex bi fi soxlil muslimina ci soxlaay julin ñi min amri jihaadihim ci mbiram seen jihaad wayu sàmmu def na sédd lil mari di ñaal aji xob ki nga xam ne buur bi dafa woote jihaad mu dem xëy ji am pas-pasu xare ñu dem ba ca ba mu tawat loolu ko teree liggéey mm. bu ñu ma séddalee màng gi mm. dañ ko sédd mm. walil farasi ak ñaal fas ar rahiisi wu daa jaame jàngoroy raxas jàngoro jàngoro lay doon buy dal ci tànku fas su fekkee da ngaa xewi sa fas yóbbu ko ca xare ba bàyyi xel xeexee ca ba nga demee ba àgg loolu dal di ko tax a gaare kon bu ñu sédd fas yi ci màng gi dañ ko séddaale wuyu saamu def na sédd lil farasi ñaal fas saxmaani ñaari cër wasaamun def na sédd benn cër mm. di raaki bi ñaal aji waram mm. màng bu ñu koy séddale mm. dañ cee séddale fas yi xam nga li tax mooy fas dañ ko daan soxla lool ci xare te nag mu doon lu seer lool nag yóbbu ko ci daanaka risque la mën nañ koy nangu mën nañ laa booleeg moom rey yëpp xaj na ca te lu seer a seer la wan nag nit ñi dañu xam du ñuy di ko yóbbu loolu moo taxoon ñu tëral ci ay intérêt ñu wax ne tey bu ñuy xare bu ñu séddalee bu ñuy séddalee màng mm. nit bu ñu ko joxee benn mm. fas ñaar lañ ko jox mm. su leen ki am na junne fas ñaari junne lay am subaana fas wi nga waroon di xeex su fekkee yaa nga xare ji ci kon ni nga moomee liñ la tuddee noonu nga moomee liñ ndax fas du lay kaalal su fekkee fas bi moomu la ko mais da nga koo luyee woon nag borom da nga fayoon mu jox la pour nga xeex si ji waaye itam intérêt boobu nga am ci mm. te mooy cër boobu ñu tuddee ko mm. yow yaa koy moom borom fas bi la ko fay mm. loolu mooy loolu loolu lay moom su fekkoon fas bi yéen moomuloo ko luyeefoo ko waaye da ngaa ni doole nangu ci moom dem xeexe ci kon waaye yow liñ la jox tuddee ko ngaay moom waaye intérêt bi am fas bi nag borom fas bi ko moom noonu daal lay demee li ñuy di jox fas bi ba nga lijjanti ko lay demee wuyu saamu dee na séeddi lil farati ñaal fas samaani ñaari cër mm. wasa mun def na sédd benn cër mm. dalaa ci mii ñaal aji waram mm. wala yu sàmmu defu sédd li ab din ñaal jaam ab jaam bu dugg ci xare bi di jàppale julin bi ko kenn du ko sédd ci màng bi wala limraatin du caageen jigéen jigéen ju fallu ci julin ñi dugg de xeex comme góor ñi bu ñu séddale màng gi du tax ñu sédd ko de wala defu sédd itam li sabiin ñaal gune gone bu duggee ci xare bi mm. du tax ñu seddu ci maam gi de mm. ilaa yu tii xandare boog man na mm. asabi yu gone ga alladi gi nga xam ne lam yaxtalim géntul alqitaala xeex uyi ji soo teweele ko al imaamu helimaan wa yuqaatila te mu xeex kon fu yu saamu def na sedd la wañaal ko lu mu doon koo xam ne xëy na kii de ci had yi gune la doo agut ku ñëw tuddee mu kalla waaye nag amirul jay bi mm. ki jiite xare bi mm. nattu na ko mm. xoolu na kàttanam xoolu na xibraam mooy xam-xam ci xeex ba may ko ndigal na ko na xeex kooku bu ko sédd waaw gis nga baax a baax waaw amirul jay moom moom nattu na ko xoolu na xibraam mooy ni mu xamee xeex xoolu na ko ci xoolu na kàttanam itam mu gis ne comme moom gune la te li ñuy soxlaa mag ñi mu mu ngi ci moom su yeboo ñu jël ko te loolu lañ koy jëlee mm. kon bu xeexee dañ ko mm. i lay yu kii xandare boog man na mm. asabi yu gune alla bi gune gi nga xam ne lam yaxtalim géntul mu man alxitaala xeex li xeex laaj ci kattan am na ko li mu laaj ci xibra am na ko buy jiitoo te wéere ko alimaamu heliman te jaysi jox na kon ndigal pour mu xeex wa yuqaatila te mu xeex boole ci xeex na kon fa yu saamu dem na séddu ci màng gi mm. la wa ñaar kon bu ñuy séddale mm. dañ koy séddu rek mm. wala yu saamu déebu sédd lil ajiri ñaal bàjji koo xam ne mu ngi ànd ci ñun waaye jihaat si nag taxu koo ànd ak ñun ak a métier la ñu soxla ko pour métier rek jël ko di ko fay par journée kooku liñ koy fay lay am moom daal dañ koo jël pour na ànd ak bi bu set dañ ko fay cinq mille francs mm. léegi li muy def mm. mooy moo moo mooy defar ay ngànnaay bu amee ngànnaayam yàqu mm. mu defaral ko loolu daal lay def kooku li ñu ko fay lay moom wala saabu moom dañ ko jël bi bu set dañ ko fay cinq mille waaye li muy def mooy dafa ñenn ñi ñu gaañ loolu rek lay def kooku waaye itam li ñu koy fay loolu lay am rek <laughs> waaw illaa yu qaatila ndare boo xeex na su fekkee doxal na métier nag mm. boole ko xeex comme nit ñi nag mm. kon dañ ko séddu ci màng gi mm. dañ ko fay dañ waxante woon su waa a borom moom ku ko neex rek mu def la nga ëppale a fadlullah yooyu tamit sax waaw ku ko mu def la nga ëppale waaw moom dara moo ko fi def kenn mënu ci dara kon moo ci lu ma ëppalee nit ñi la <coughs> wala wala sax mu déggu sédd ajiri ñaal bàjji ilaa yuqaatila darabu xeexam wa man aslama ku tuub na mu minaan haddu bi ci noon yi xalaa sëyin ànd ak dara fi ci loxoom min amwaalil muslimin ci xalali julin ñi fa huwa loolu xalaalun aji lew la lawa ñaal kii ci xéefari noonee ca la baxoo li ko tax a mooy dugg ci lislaam su dikkee bañ tuubal ko xalal ju ma xamee woon mm. lum cay wax mm. suñ ko gisee façon woo xam ne yaa ko moom na mm. a ah, dañ ko koy baxee de suñ ko gisee nag woo xam ne yaa ko moom woon dañ ko koy baxee de suñ ko gisee moom moo xam ne yaa ko moom woon itam dañ ko koy baxee lu tax mooy tuub gi dafay tax dafay màggulu ko jiit wa qul lilladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf nit bu doyee xéefar génn ci kufru dugg ci islam la wéyoon ci kufru ba mm. dañ koy bàyyi duñ ci waxati dara mm. loolu moo tax loola kenn du ci waxati dara mm. wa man aslama ku tuub na mu minal haddu bi tukkee ca noon ya moom mu ngi bàyyee ko ci daarul har bi di ko tuub si xala soyin ànd ak dara fi yadihi ci loxoom min amwaalil muslimin ci alali julin ñi mu ngi amee loo xam ne nag xam nañ ne ken ci ñun moo ko mosoon a moom loola aw fas la aw nag la ak ab la ab mbubb ak lu mu mën a doon wa huwa loola mu xaame xalaalun aji lew la loo ñaal ko loola kenn du ko jëlati ci moom gannaaw ku waaxu dugg ci lislaam bi la wa man istara ku jëndee na mu sey an dara min ha ci xalali julit ñi min maa yu addu ci xalali noonu lam yaxutu du ko jàppee rabbuhoo boroomam illaa bi samani dara ci njëg nit su demee ca dëkki noonu dal dafay jënd dara andi ko mm. nga xam ne lii yaa ko mosoon a moom mm. te ñoom nag dañ laa tooñoon rek jël ko mm. waaye waroo ko woon a kon boo ci bëgg a jot da nga koo delloo njëgam yaa moom mii dem na ce ñoom jënd fa aw fas ci jom ñett fukki junne léegi moom soxla na fas bu demee foofu dana ko mën a la demee foofu gis na fas wi na ko jënd na ko ba andi ko nga xam fas wi teewal ay bayinaat yu ñu xamee ni ci sa loxo la nekkoon mm. nga leeral lim joge woon ci sa loxo mm. ñoom dañ ko xas boon mm. ñoom dañ ko sàccoon ak yu mel noonu kon moom munul bañ ne fas wi sa fas la te kon affaire jàmbur la munul bañ loolu bon du la ko mën a bañee jox waaye da ngay xam ne fas wi buy sa fasin nag moom tooñul la xalalam la ci def te yow nag sa alal ëppul xor ma xalalam kon soo ci bëgg lim ci defoon nga koy delloo wala boo ko mënta delloo mm. nga xam ne ñàkk nga sa fas mm. te man la cee jotaat rek mm. noonu wa man istara ku jënd na muy kii moo jënd say an dara muy aw fas min maalin ha min ha ci xàlal julin ñi muy fas woo xam ne yaa ko moomoon mu jëndee ko min ha min maalin ha duwi ci xàlali noon yi waaye mu ngi ko jëndee ca dëkki noon lam yaa xusu du ko jàppee rëbb hoo waromam muy yow doo ci jotee illaa bi samani dara ci njëg njëggam ci defoon mu koy delloo wala bu ko dut doo ci mën a jot wa ma waqaa mu fil maqasimi ci seddale min ha ci xaalali julin ñi fa rabbuhu boromam xaqu mu gën bihi ci moom bi samani ci njëg wa ma lam yaqaa lu tàbbiwul fil maqasimi ci seddale fa rabbuhu boromam xaqu mu gën bihi ci moom bila samani ci lulu njëg ñaari mbir lañ yoo xam ne biñ mujj bind mm. moom la ñuy njëkk jëfee mm. su fekkee dañoo xeexal ay noon ba gañe mm. suñ nangoo màng gi ci ñoom dañoo tiyee màng gi wirifee ko luñ ci xàmmi ne kenn ci jullit ñi moo ko moomoon dañ ko xoo bu ñëwee ñu ne ko lii day gis nañ ci màndarga buñ xamee ne ci sa loxo la nekkoon léegi nag xam nañ ne bu ci jógee wu duñ ko jëlee ci xéefar yi mm. yow nag yaa de leeral nu mu ci jógee woon mm. su fekkee da ko jaayoon mm. ñu xam ne mooma too ko moom su fekkee da nga ne ñoom ñoo ko nangowoon wala ñoom ñoo ko sàccoon ñu xam ne saalal alal la ba léegi ñoom dañ laa ñu delloo la ko mu jeex ah ñu delloo la ko ak mu jeex gis nga bu baax a baax la ñuy def ba lépp luñ xam borom mu demee noonu luñ mën a xam borom it ñu def ci noonu suñ demee nag ba nga xam ne moom liñ xamoon seeni waroom jeex na mm. am na ci loo xam ne mënuñoo xam seeni waroom mm. ñu door a séddale mang gi mm. léegi nag buy séddalee mang gi ba pare na nga seetlu ci cërëb kii loo xam ne yaa ko mosoon a moom soo ci bëggee jox daf la koy jaay ndax xas na ko moom ba pare moo tax ne wo ma wamaa waqaa lu tàbbi na mu fil maqaasimi ci séddale min ha ci xaalali julin ñi lu séddale la ci mang gi ba mu dugg ci cërëb kii ndege yaa ko moomoon mm. kon farab bu hoo boromam mm. muy yow a mm. xaqu moo gën a xëy bii ci moom bi sama ne ci njëg kon soo waxee ne fa ngaa delloo ki te jot ci moom waru wa maa lam yaqan lu tàbbiwul nag fil maqaasimi ci séddale loo xam ne gis nañ ko ci màng gi waaye séddalee guñu nag ñi xam ne diw sànga moo ko moomoon kon fa rabbuhu boromam a xaq moo gën a xëy bii ci moom bilaa sama nin ci loolu njëg nga bu ñu koy lijjanti nag du gaaw de ah lii daal gis nañ ci ay mandarga hmm. yu ñu xamee ne yaa moomoon hmm. waa lii diw sàngam ak diw sàngam saxal nañ ne yaa moomoon xëy na dañ la ko gisee woon mais nag bu jógee wuloon ci sa loxo kon ñun duñ ko nangoo ci noon yi léegi nag nam fa jógee woon yow yaa koy leeral teewal ay bayinaat yu ñu xamee ne wax nga dëgg su dee waroo ko ñàkk ñi delloo la ko so dee waroon nga ko ñàkk nag ci màng gi la noonu rek lay tëddee du mm. de du gaaw yëfi yoon gaawul yëfi yoon gaawul de mm. bu foog ne buñ ni Moussa moom nañu ne am Moussa de mm. du demee noonu de waaw bu foog ne buñ ni Moussa moom nañu ne am Moussa kon day yomb lool ah buñ ni Moussa moom lay convoqué boo demee mu lii dañuy wax ne yow yaa ko moom ñii ñoo ko wax wala lii sa jeexit la xam nañ ne sa loxo la nekkoon ah léegi ndax yaa ko moomoon wala dañ la ko abaloon wala nangam hmm. nga ne maa ko moomoon hmm. ñu lay la kon nan la jógee ci sa loxo da dik ba dikk ci ñi dana hmm. baax soo waxee ne yaako ko jaayoon yaa ko jaayoon soo waxee ne yaa ko mayeewoon yaa ko mayeewoon moomatoo ko soo waxee leneen lu teg ne waroo ko ñàkk nag boobu nañ la koo door a jox waaw <laughs> dégg nga xalal mos da yombul nga wax ak day mu na lii buntu bu tooyee tooyee la bu xam xaalis waaye bu génn jotee da nga xam ne yoonu xaalis gaawut de mm. yoonu xalal gaawee wut de mm. dégg nga wala nafa den ndollal mm. illa min al xumus de tukkee ci xumus xal ijtihaad ci ijtihaad min al ci xel imam maanaam nit ñi fu ñu dajee di liggéey dara gañaante daf caay xam ndaxe muñ man-man su ko defee ñàkk a man-man googu nag mooy waral ñàkk a yem ñàkk a yem cër moom mm. soriant la rek maa ngi buñ koy séddale mm. ñëpp a cee yemle mm. kii nag am na taxawaay bu xam ne dëgg-dëgg tuddee ko tiraanga baax na benn ci def defu kattan la ko am wala ci xelaat la ko am wala ci def defu alal la ko am waaye am na nag lu mu gañee niñ ci xare bi kooku baax na njëriñ la am ci xare bi jox ko ci lu ñu tuddee teraanga loolu mu xaayul loolu mooy mm. ndollal mm. loolu la wax ne bu amee imaam xumus bi mu téye woon mm. ci lay dindi jox ki mu bëgg a waaye ñeenti xumus yi moom ñu doon xare ñoo cee yemle loolu nag sëriñ bi joxu ko ci dayo moom mooy seet taxawaayu kii rek gis ne bii la xelloon rek mu defal ko wala nafala di ndollal illaa minal xumus yi ndara de tukkee ci xumus ala ijtihaadi ci ijtihaad min mm. al imaami ci imaam mm. mooy buur bi jullit ko mm. yakun du nekk zaalika ndollal loolu qabla al qasmi ca njëkk séddale ga moom imaam day nekk bañ séddale mangi gi ba pare ki muy tiraangal mu door a lim li mu koy tiraangale na ko am lii nga boole ci wasala bu rekki minan naf li mu ngi bokk ci ndollal am na luñ naan salab ci ndollal la bokk mooy buuru xare bi mm. dafa joxe ordal ne mm. képp ku daane xéefar mm. fas wam waroon ba ngeen a xeex ba ko ca fas woowu jël ko sel fas woowu jël ko sel bu baax a baax yonent bi dafa am ku ñuy wax Abu Ubaydata mu doon kenn ci noon yi keroog xare Uhud dafa fekk fi yonent bi toog ni ñaa ngi ko wër mm. mu daal di ko dóor ci bopp ngànnaayam mm. mu ko dóoree mm. tuñ tuñ bi dafa xar bëj bi yànq yonent bi naay na bari bëgg a daanu talaata nu Ubaydillah moo ko xam Ali ibn Abi Talib ñene ko ba mu defee loolu ku ñu naan Xaatib ibn Abi Baltaata ci saaba yonent bi moom daal bi gaañu de waaye bi mu defee lool hmm. ba daw la ko topp <laughs> la ko ba jot ko rey ko hmm. nangu fas bi indil ko yonent bi sallallahu hmm. def dafa topp waa ji ko ba jot ko waa ji la waaye da koo ba jot ko rey ko nangu fas <laughs> noonu la ko def noonu la def wax nañu ko wax nañu ko saaba yi jàmbaar lañu de jàmbaar dëgg la amuloon fas de waaye moom def na loolu <laughs> waaw taxawaay yu mel noonu nag léegi mm. dafay dafay mm. mm. mu ne war ribaatu ribaat fii nekk na ci fadlun gëneel kabirun du daaji màgg a ribaat mooy tey dëkk bi bu jàkk dëkk yi dañ leen daan miire da leen tabax dut fu neex nga de ko tëjee nga tijji fii mooy dëkk buur bi defal na ko kaaraanga buñ ko tëjee dut ku mu neex mu dugg mu am nag barab boo xam ne ak lu ñu xaar-xaar dëkk bi rek mm. xëy na xam na num demee ba noonu mën nañ koo def occasion mm. mën nañ koo def jaarukaay ñëw di yàq ci dëkk bi mm. yow ak keneen ak keneen ngeen walanteeru nekk fa pour noonu buñ bëggee indi lor ngeen dàqaleen loolu la ñuy tuddee ab barab la noonu mën nañ koo def poroxlookaay da yàqal si jullit ñi ak keneen ak keneen ngeen am volontaire ne fa mm. saa su noonu fexee rek ngeen dëppaleen mm. loolu mooy ribaat mm. wa ribaatu ribaat fii nekk na ca fadlun ngëneel kabirun du daa ji màgg ki koy liggéey mooy murabit mooy murabit tan bu baax a baax maanaam fa murabitun wa seyhu aw abnaahum aw abnaahuma atmaamu taklifum ala al insani wa dalika ngëneel li nag bi qadri kasrati xawfi ahli salika daxri nekk na ci kem bëri ragal ak ñooñ boobale diggante nga ne mu ngi topp nu mu fadee rek nu mu gën a fadee rek gën wa kasrati taharrusihim ak bëri seen ak wattandeku mi naa du ci seeni noonu wala yuxsa déefu xeex bi xëy idnil abawayni ci lu dul ndigalal ñaari way jur nit warul gàdd gàddu jaasim mm. ne damay dem ci jihaad ba mm. te du yaayam ak baayam mm. ñoo ko ci may ndigal yonent bi xoote na jihaad xam nit ku dikk mu ne ko su fekkee tiyaaba nga bëgg xam nga foo ko wuutee demal nga toppatoo sa ñaari way jur yi waaye yonent mu ne ko su fekkee tiyaaba nga bëgg xam nga foo ko wuutee demal toppatoo sa ñaari way jur yi xam nga toppatoo la kenn du ci wuutu mm. jihaad fardu kifaaya la mm. nit ñi mën nañ la ciy wuutu mm. fardu ayn ak fardu kifaaya nag bu ñu dajee xee nag da ngaa soxla fardu kifaaya ñu la ciy wuutu wàcce la ci illaa yef ja andare boog bett na alhadduwu nooni madinata qawmin dëkk aw nit wa yuxiroona teñ na ma lokki alayhim ca waa dëkk ba kon fa fardun fardu aynin la alayhim ca waa dëkk ba dafa hum jay nooni lu may mu doon ay noon dañoo songab dëkk mm. bàyyi xel nag ne dañoo faagaagal dëkk bi mm. toll ci kem ñaari yoon waa dëkk bi mm. kon foofu moom xeex fardu aynin la ku xeexut dafay bàkkaar wala yu taadanu déebu diisu ala ba waane ñaari way jur fii misli hada ci kem lii li nag bu amee moom jël jaa fi xeex rek amul yaay d'accord na wala d'accordul amul baay d'accord na wala d'accordul ndax ku xeexut ku mu yàlla lañ ko jàppee mm. te la taa'ata mm. li maxluqin fi ma'siyatil xaaliq mm. loolu moo tax baax na boobu